ci kii nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko am cofeel ci képp koo xamante ne gëm nga ne projet bii mu yor mën na réaliser wu xamal ne décision bii mooy la décision bi nga xamante ne moom lañ mujjee jël te ñaan sénégalais yépp ñu topp ci à partir de demain lundi 20 novembre 2023 mbokk yi kii nga xamante ne moo di Guy Marius Sagna ak kii nga xam ne moom moo di Biram Souley jóg ak Abbas Fall ak El malik njaay dañoo booloo def lu ñuy tuddee déclaration commune déclaration bi nag lii la wax yéen sénégalais yi nga xamante yéen a nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci diaspora bi jot na tey ñu dem ci li ñuy tuddee suñu phase phase bi nga xamante ne moom lañu def mu nekk suñu plan ci ñaareelu phase boobu dañoo ñaanoon képp koo xamante ne moom mooy sympathisant militant wala sénégalais nga déglu ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi projet bii nga xamante ne moom lañu ñu ngànk tey ndax jamono bu ne bu leen leeree ne kilifa yi nga xamante ne ñoo ko ngànk dañuy toog di xalaat di réfléchir di ut ay pexe yoo xamante ne moom la ñuy fexee ba incha allahu rabbi février deux mille vingt quatre Macky Sall ak nguuram denc nguur gi ñaawteef yi ñu fi def ñu génnee ko fi tegaat fi régime bu bees taq boo xamante ne projet bi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko mës a yor mës a gëm moo fi dox ci wàll woowu déglu ngeen leen bu baax a baax a baax ñu ngi leen remercier ci seen confiance ñi nga xam ne nag la ñu jàkkaarloo ñuy suñuy adversaire tey ñu mënees leen a tuddee ay ennemis ndax seen taxawaal yi lu ne def nañu ko lépp loo xamante ne rek état moo ko amee woon ci kattan ak doole utiliser nañ ko ngir jéem a yàq ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko waaye yàq lii kat liñ ko fi ko jaarale mooy ci wàllum justice parce que jàpp nañ ne foofu lañ mën a jaar ngir gañee temps pour empêcher président Ousmane Sonko mu nekk candidat waaye yàq googu mu mënuñu ko réussir ndaxte président Ousmane Sonko tey. nekkatul nit kese waaye c'est une conscience nit la koo xamante ne sénégalais yi ñoo ko gëmal seen bopp bëggal ko seen bopp loolu ngeen moo waral ngeen gis mu am ay ping-pong judiciaire tey jii nii buñ jógee ci justice bi tribunal bi buñ fa jógee dem ci beneen tribunal amul ci ku dul juge Sabassy Faye amul ci benn juge boo xamante ne jël nga sa responsabilité en tant que juge bu honnête pour wax li nga xamante ne mooy dëgg ci mbir bi gis ngeen la nga xamante ne moo xew fële nga xam ne moo di cour des comptes ci loolu ñu gis ne ñi nga xam ne tey jii nii ils sont complices ci wàll woowu bokk na ci direction générale des élections ak ministère de l'intérieur parce que ñoom ñoo fexe kat ba jéem a xañ ki nga xam ne moo di jéem a xañ président soo ko bu nekk candidat te moo ne day moom mooy porter projet PASTEF bile ndaxte kat xam ngeen ne 11 décembre bii ci lañu war a def li nga xam ne moom mooy dépôt de candidature bi te boobu ba tey ñu président Ousmane Sonko sax mu mën a retirer ay fiche de parrainage lu dul di ko defal li nga xam ne mooy pong-pong judiciaire ngir bañ moom mu bokk ci élection yi léegi nag ngir mën a ut indi réponse ci loolu tontu ci loolu teg stratégie bi nga xamante ne mooy tax ñu mën a jot ci nguur gi gannaaw ba nga xamante ne Birame Souleye Diop Guy Marius Sagna Abbas Fall ak El Malick Ndiaye waxtaan nañu ñoom seen biir gannaaw ba ñu waxtaanee ñu dem valider ko ci président Ousmane Sonko mu valider ko appuyer ko ànd ci ak ñoom ne leen lii xalaat la ànd naa ci ñoom nee nañu ñi ngi ñaan sénégalais yépp comme mu ci mënt doon ak foo mënti bokk ñu préparé wu lancer li nga xamante ne à partir de demain lundi 20 novembre 2023 lii nga xam ne mooy suñu campagne de parrainage campagne de parrainage boobu nag kiñ ciy parrainé kenn képp la. kese cote dong muy le candidat Bassirou Diomaye fay la ñuy candidater à partir de demain lundi 20 novembre 2023 mooy nekk candidat wu projet bi nga xamante ne ñii di Birame Souleye Diop Guy Marius Sagna Abbas Fall El Malick Ndiaye gannaaw bañ ci waxtaanee président Ousmane Sonko ànd nañ ci kon Bassirou Diomaye fay la ñuy parrainer à partir de demain lundi 20 novembre 2023 incha allah ñu ne parrainage yii yi nga xamante ne tey jii nii ñetti semaine képp lañu ci am ñun waa PASTEF ñun ñi nga xamante ne tey jii nii am na lu ñu gëm ñun ñi nga xamante ne tey jii nii projet bi ñoo ko yoon dañoo bëgg mu nekk réponse boo xamante ne tontine woo xamante ne mësta am dans l'histoire politique dañoo bëgg a wane ne Sénégalais yi dañoo gëm projet bi dañoo bëgg a wane ne Sénégalais yi président Ousmane Sonko la ñu gëm dañoo bëgg a wane ne bëgg nañ changement mais dañoo bëgg aussi Sénégalais yi ñëpp jóg àndandoo def parrainage bu mucc ayib mu am benn fenn foo xamante ne fa lañ war a yem porte à porte këroo kër quartier par quartier commune par commune département par département région par région nañ wër fépp ñu pare ne ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye parce que aujourd'hui mooy ki nga xamante ne moom la ñu choisir comme candidat ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy régime Macky Sall bii seen volonté ak seen bëgg-bëgg dañ leen koy opposé dañ leen di jàkkaarloog ñoom par lan cofeelu peuple bi bëgg-bëggu peuple bi bëgg-bëggu askan wi ci li nga xamante ne moom la ñu bëgg ngir Sénégal mën a jëm kanam moo tax parrainage bii li ñu ci bëgg mu nekk parrainage bu mucc ayib parrainage boo xamante ne kenn mësu koo gis dans l'histoire politique du Sénégal mu nekk parenage boo xamante ne day wane ne ku ci nekk da ngay def si sacrifice li nekk sa xol nga yebbi ko ci parrainage bi ñëpp mën a pare parrainer ki nga xamante ne moom mooy le candidat def ko ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye pare parrainé ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye fay tey jii nii mooy ne ki nga xamante ne moom mooy le président Ousmane Sonko parce que nag xam nañu ne loolu mooy seen bëgg-bëgg yéen sénégalais te xam nañ ne toll ngeen ci ay millions yoo xamante ne bëgg ngeen loolu kon li ñu bëgg mooy des centaines de milliers de parrainages wala sax ay millions wu yoo xamante ne ay signature la yoo xam ne da koy jox te am doublon ku ci nekk nga parrainé kenn benn yoon def ko. ngir ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye yéen ñi nga xamante ne yéenay sénégalais yi ñii di biram Souleye Diop Guy Marius Sagna Abbas Fall ak El Malick nee nañu pare ne ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye fay firiwul ne dañoo bàyyi président Ousmane Sonko candidature mukk waaye nag ñëpp xam nañu ne président Ousmane Sonko dina xeex ba keroog dernier souffle maanaam nooy kem gu mujj dina xeex ngir réew mi mën a am jàmm parce que moom nekkul ci ay compromission waaye nag pare ne ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye fay mooy jéem a fexe ba Macky Sall échoué Macky Sall li mu bëggoon mu ñàkk ko Macky Sall jóge ci réew mi ak régime tey jii nii foofu lañ toll moo tax ñun fi ñu toll mooy ñu jéem a pare ne ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye Birame Souleye Guy Marius Sagna Abbas Fall ak El Malick gannaaw bañ ci amee ndigalu ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko ñoo ngi leen xamal ne candidature président Ousmane Sonko ba tey kenn écarté wu ko ñoo ngi leen xamal ne lépp loo xamante ne moom mooy dooley état ci wàllum justice ci wàllum administration bi nga xam ne Macky Sall utilisé na ko ngir jéem a xeex Ousmane Sonko du ko tax am ndam ndaxte ay avocat wu président Ousmane Sonko xarañ nañ xarañ goo xamante ne ñoo ngi jàkkaarloo moom te dinañ continuer di ko def. waaye ñu ngi leen leeral di leen gëmm la di leen xam leen la di leen assuré ne këf yeneen parrainage yi nga xamante ne am na fi mooy parenage élu mooy parenage yu député yi am na fi tam nee na yooyu itam ñoo ngi ciy taxaw di xaar bu baax a baax a baax buñ ci waree pare ne président Ousmane Sonko buñ ko amee rek incha allahu rabbi pour mu war a nekk candidat rek dinañ ko ci parrainé bu baax a baax a baax ba nekk suñu candidat moo waral. chaque fois bu ñu jàppee ne war nañoo parrainer kenn koo xam ne rek président Ousmane Sonko moo ko choisir incha allahu rabbi loolu da ngeen ci jot waaye fi mu nii li ñu décidé gannaaw ba nga xamante ne waxtaan nañ teg président Ousmane Sonko mooy Bassirou Diomaye fay mooy ki nga xamante ne moom la ñuy parrainer waaye président Ousmane Sonko nag ñu ngi taxawandi di xaar kon na ñëpp topp li nga xam ne moom mooy parrainage pour Bassirou Diomaye Faye président Ousmane Sonko ñu xaarandi parce que parrainage yu élu député yi mi ngi fi. loolu moo waral yéen ñëpp dañoo bëgg ngeen jóg nag am taxawaay bi nga xamante ne moom lañu ñu war a am dem defe ji lii nga xamante ne moom mooy suñuy activité de parrainage pour ñu def campagne de parrainage bu mucc ayib boo xamante ne kenn mësu koo gis ci biir réew mi tey jii nii régime Macky sàll mi ngi nekk ci ay schéma ci ay tactique waaye ñun itam ñoo ngi nekk ci suñu xam-xam ak gëm ne sénégale yi ñun la ñu àndal te incha allahu rabbi ñun ñooy am ndam ci kaw Macky Sall ak régime ndaxte nag ndam li tax ñu yaakaar ko mooy peuple sénégalais bi ñun la àndal ndam li lu tax ñu yaakaar ko mooy peuple bi dafa gëm espoir te peuple bi dafa gëm ne projet Pastef bii moo mën a def réew mi peuple bi dafa dum mooyu ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall ak régime kon yéen askanu Sénégal yéen ndaw ñi ci boppam ñoo ngi leen ñaan. à travers cet appel solennel ci woote bii yéen ñëpp ngeen dem retiré ji li nga xamante ne ngeen dem ji li nga xamante ne moom mooy seeni carte électeur yéen ñëpp retiré leen ko bu leen ko bàyyi fi nga xamante ne moom mooy ci ci ci ci bureau yi ak ci école yi ak fi nga xamante ne fa la nekk jëli leen ko ndaxte incha allahu rabbi 2024 ndam li dafa war a leer naññ ndam li kenn waru ko laam-laame te ndam li dañ ko war a amee dès le premier tour kon na ñëpp jóg dem waajal parenage dem parrainer ji kii nga xamante ne moom mooy le candidat Bassirou Diomaye fay te nag ñu def ko ci en un temps record parce que trois semaines la ñu am waaye dañoo bëgg am nombre de parrainage boo xamante ne mindeef mosu koo am ci réew mi te bu ñun buñ ci paree mindeef dootu ko gaaw a amaat ci réew mi jërë ngeen jëf lii daal mooy li nga xamante ne mooy déclaration biñ leen doon waajalal incha allah ñii ma dinañ ñëwaat def seen déclaration ci benn conférence de presse boo xamante ni yéen di ngeen ko mën a déggaat waaye tey jii nii l'urgence le plus important l'information la déclaration li ñu leen jox mooy à partir de demain lundi 20 novembre na ñépp xam ne ñun ca lañu doon suñu parti ak suñu projet jóg nañu ngir waajal li nga xamante ne moom mooy parrainage bi liggéey ci parrainage bi commencé parrainer kan lañuy ñuy parrainer kenn la képp corte dong muy Bassirou Diomaye Faye moom mi nga xamante ne tey candidat la à l'élection présidentielle de 2024 jërë ngeen jëf ci ànd bi nga xam ne ànd ngeen ko ak Jotna Media Group di leen wax ne rek incha allahu rabbi ci mbirum parrainage yi dinañ ci ànd ak yéen toutes ces trois semaines là pour lépp loo xamante ne moo ci actualité ñu jox leen ko en un temps record jërë ngeen jëf ci ànd bi nga xam ne ànd ngeen ko ak Jotna Media Group. réew dafay torlu à des moments historique boobu dafa am moment yoo xam ne le peuple doit prendre son destin en main. yeneen réew yi ko tey muy tey muy nga xam ne ñun ñëpp xam nañu bu ñu demee deux mille vingt quatre deux mille vingt quatre gannaaw yàlla yàlla kenn mënuñu tere jël réew. mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen chaîne Jotna Media Group tey dañuy commencer live bi nga xam ne du yàgg dara. ndaxte yóbbante la rek boo xamante ne dinañ ko defee nañ ko war a defee waaye dañuy tàmbali par njëggalu ci retard bi nga xamante ne am na parce que dañ leen joxoon rendez-vous ci 16h mujjut jàll ensuite ñu ne leen 18h ba mu am retard bi mu am ba en ce moment la ñu mën a def déclaration yi nga xamante ne moom la ñu mën a def waaye mbokk gannaaw bi ñu annoncé. par stratégie sur la page du président Ousmane Sonko par stratégie li nga xamante ne mooy sa déclaration gis nañu loo xamante ne yéem na sax ñu koy gis ci réew mi ci nit ñi ni ñu taxawee ngir bàyyi ko xel ngir nit ñi ni ñu soppee président Ousmane Sonko ngir di ko xaar ngir déglu ko waaye mbokk yi ca boobu jamono Macky Sall ci boppam actionné na lépp loo xamante ne yaakaar na ne bu ko yëkkatee mën na dal ci ay gor def na ko il avait commencé à mettre sens dessus dessous fële nga xamante ne mooy prison Cap Manuel li ko tàmbalee ca kaw ba ca suuf ñëpp mu naroon na yàq seen dund parce que tout simplement jàpp na ne kat yaay complicité boo war a tax président Ousmane Sonko mën a def discours parce que moom loolu la yaakaar te loolu la mënta muy kilifa goo xamante ne woo ko ku ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy les pénitenciers ñi nga xamante ñoom ñooy directeur ñi nga xam ne ñoom ñooy assistant ku ci nekk nga bëgg koo yóbbu laabi siina parce que jàpp nga ne kat am na un prisonnier spécial qui s'appelle Ousmane Sonko boo xamante ne gis nañ ci page am ñu ne day def une communication loolu ce n'était qu'une stratégie boo xamante ne dañ doon wan Macky Sall ne ko yow doo fi dara ci réew mi jaroo fi tous te jaroo fi dara xam ngeen ko waaye mbir mi yamul ci loolu képp kilifa yi ndaxte dafa am décision boo xamante ne ñun jël nañu ko muy décision boo xamante ne nag moom lañ leen jox tey boo xam ne dinaa ko liir ñun ñëpp ñu dégg ko xam ne képp koo xamante ne am nga cofeel ci kii nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko am cofeel ci képp koo xamante ne gëm nga ne projet bii mu yor mën na réaliser wu. xamal ne décision bii mooy la décision bi nga xamante ne moom lañ mujjee jël tey ñaan sénégalais yépp ñu topp ci à partir de demain lundi 20 novembre 2023 mbokk kii nga xamante ne moo di Guy Marius Sagna ak ki nga xam ne moom moo di Birame Souleye Diop ak Abbas Fall ak El Hadj Malick dañoo booloo def lu ñuy tuddee déclaration commune déclaration bi nag lii la wax yéen sénégalais yi nga xamante yéen nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci diaspora bi jot na tey ñu dem ci li ñuy tuddee suñu phase deux ñaareelu phase bi nga xamante ne moom lañu def mu nekk suñu plan ci ñaareelu phase boobu dañoo ñaanoon képp koo xamante ne moom mooy sympathisant militant wala sénégalais nga déglu ñi nga xamante ne ñooy kilifa yi projet bii nga xamante ne moom lañu ñu ngànk tey ndax jamono bu ne bu leen leeree ne kilifa yi nga xamante ne ñoo ko ngànk dañuy toog di xalaat di réfléchir di ut ay pexe yoo xamante ne moom la ñuy fexee ba incha allahu rabbi février 2024 Macky Sall ak nguuram denc nguur gi ñaawteef yi ñu fi def ñu génnee ko fi tegaat fi régime bu bees tàq boo xamante ne projet bi nga xam ne moom la président Ousmane Sonko mës a yor mës a gëm moo fi dox. ci wàll woowu déglu ngeen leen bu baax a baax a baax ñu ngi leen remercier ci seen confiance ñi nga xam ne nag la ñu jàkkaarloo ñuy suñuy adversaire tey du mënees leen a tuddee ay ennemis ndax seen taxawaal yi lu ne def nañu ko lépp loo xamante ne rek. état moo ko amee woon ci kattan ak doole utiliser nañ ko ngir jéem a yàq ki nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko waaye yàq gi kat liñ ko fiñ ko jaarale mooy ci wàllum justice parce que jàpp nañ ne foofu lañ mën a jaar ngir gagner temps pour empêcher président Ousmane Sonko mu nekk candidat waaye yàq googu mu mënuñu ko réussir ndaxte président Ousmane Sonko tey nekkatul nit kese waaye c'est une conscience nit la koo xamante ne sénégalais yi ñoo ko gëmal seen bopp bëggal ko seen bopp. loolu ngeen moo waral ngeen gis mu am ay ping pong judiciaire tey jii nii buñ jógee ci justice bi tribunal bi buñ fa jógee dem ci beneen tribunal amul ci ku dul juge Sabasy Faye amul ci benn juge boo xamante ne jël nga sa responsabilité en tant que juge bu honnête pour wax li nga xamante ne mooy dëgg ci mbir bi gis ngeen li nga xamante ne moo xew fële nga xam ne moo di cour des comptes ci loolu ñu gis ne ñi nga xam ne tey jii nii ils sont complices ci wàllu woowu bokk na ci direction générale des élections ak ministère de l'intérieur parce que ñoom ñoo fexe kat ba jéem a xañ ki nga xam ne moo di jéem a xañ président Ousmane Sonko bu nekk candidat te moo ne day moom mooy porter projet PASTEF bile ndaxte kat xam ngeen ne 11 décembre bi ci la ñu war a def li nga xam ne moom mooy dépôt de candidature bi. te boobu ba tey mayuñu président soo ko sax mu mën a retirer ay fiche de parrainage lu dul di ko defal li nga xam ne mooy pong-pong judiciaire ngir bañ moom mu bokk ci élection yi léegi nag ngir mën a ut indi réponse ci loolu tontu ci loolu teg stratégie bi nga xamante ne mooy tax ñu mën a jot ci nguur gi gannaaw ba nga xamante ne Birame Souleye Diop Guy Marius Sagna Abbas Fall ak El Malick Ndiaye waxtaan nañu ñoom seen biir gannaaw ba ñu waxtaanee ñu dem valider ko ci président Ousmane Sonko mu validé ko appuyé ko ànd ci ak ñoom ne leen lii xalaat la ànd naa ci ñoom nee nañu ñi ngi ñaan sénégalais yépp ku mu ci mënt doon ak foo mënti bokk ñu préparé wu lancé li nga xamante ne à partir de demain lundi 20 novembre 2023 lii nga xam ne mooy suñu campagne de parrainage campagne de parrainage boobu nag kiñ pare parrainé kenn képp la kese kott dong muy le candidat Bassirou Diomaye fay la ñuy candidater à partir de demain lundi 20 novembre 2023 mooy nekk candidat wu projet bi nga xamante ne ñii di Birame Souleye Diop Guy Marius Sagna Abbas Fall El Malick Ndiaye gannaaw bañ ci waxtaanee président Ousmane Sonko ànd nañ ci kon Bassirou Diomaye fay la ñuy parrainer à partir de demain lundi 20 novembre 2023 incha allah ñu ne parrainage yii yi nga xamante ne tey jii nii ñetti semaine képp lañu ci am ñun waa PASTEF ñun ñi nga xamante ne tey jii nii am na lu ñu gëm ñun ñi nga xamante ne tey jii nii projet bi ñoo ko yor dañoo bëgg mu nekk réponse boo xamante ne tontine woo xamante ne mësta am dans l'histoire politique dañoo bëgg a wane ne Sénégalais yi dañoo gëm projet bi dañoo bëgg a wane ne Sénégalais yi président Ousmane Sonko la ñu gëm dañoo bëgg a wane ne bëgg nañ changement mais dañoo bëgg aussi Sénégalais yi ñëpp jóg àndandoo def parrainage bu mucc ayib mu am benn fenn foo xamante ne fa lañ war a yem porte à porte këroo kër quartier par quartier commune par commune département par département région par région nañu wër fépp ñu pare ne ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye parce que aujourd'hui mooy ki nga xamante ne moom la ñu choisir comme candidat ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy régime Macky Sall bii seen volonté ak seen bëgg-bëgg dañ leen koy opposé dañ leen di jàkkaarloog ñoom par lan cofeelu peuple bi bëgg-bëggu peuple bi bëgg-bëggu askan wi ci li nga xamante ne moom la ñu bëgg ngir Sénégal mën a jëm kanam moo tax parrainage bii li ñu ci bëgg mu nekk parrainage bu mucc ayib parrainage boo xamante ne kenn mësu koo gis dans l'histoire politique du Sénégal mu nekk parrainage boo xamante ne day wane na ku ci nekk da def si sacrifice li nekk sa xol nga yebbi ko ci parenage bi ñëpp mën a parrainer ki nga xamante ne moom mooy le candidat def ko ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye parce que pare parrainé ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye fay tey jii nii mooy ne ki nga xamante ne moom mooy le président Ousmane Sonko parce que nag xam nañu ne loolu mooy seen bëgg-bëgg yéen sénégalais te xam nañ ne toll ngeen ci ay millions yoo xamante ne bëgg ngeen loolu kon li ñu bëgg mooy des centaines de milliers de parrainage wala sax ay millions wu yoo xamante ne ay signature la yoo xam ne da ngeen koy jox te du am doublon ku ci nekk nga parrainé kenn benn yoon def ko. ngir ki nga xam ne moom mooy Bassirou Diomaye fay yéen ñi nga xamante ne yéenay sénégalais yi ñii di Birame Souleye Diop Guy Marius Sagna Abbas Fall ak El Malick nee nañu pare ne ki nga xamante ne moom mooy Bassirou Diomaye Faye firiwul ne dañoo bàyyi président Ousmane Sonko candidature mukk waaye nag ñëpp xam nañu ne président Ousmane Sonko dina xeex ba keroog. dernier souffle maanaam nooy kem gu mujj dina xeex ngir réew mi mën a am jàmm parce que moom nekkool ci ay compromission waaye nag pare ne ki nga xam ne moom mooy Bassirou jomay fay mooy jéem a fexe ba Macky Sall échoué Macky Sall li mu bëggoon mu ñàkk ko Macky Sall jóge ci réew mi ak régime tey jii nii foofu lañ toll moo tax ñun fi ñu toll mooy ñu jéem a pare ne ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye Birame Souleye Guy Marius Sagna Abbas Fall ak El Malick gannaaw bañ ci amee ndigalu ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko ñoo ngi leen di xamal ne candidature président Ousmane Sonko ba tey kenn écarté wu ko ñoo ngi leen xamal ne lépp loo xamante ne moom mooy dooley état ci wàllum justice ci wàllum administration bi nga xam ne Macky Sall utilisé na ko ngir jéem a xeex Ousmane Sonko du ko tax am ndam ndaxte ay avocat wu président Ousmane Sonko xarañ nañ xarañ goo xamante ne ñoo ngi jàkkaarloo moom te dinañ continuer di ko def. waaye ñu ngi leen leeral di leen gëm la di leen xam leen la di leen assuré ne këf yeneen parrainage yi nga xamante ne am na fi mooy parrainage élu mooy parenage yu député yi am na fi tam nee na yooyu itam ñoo ngi ciy taxaw di xaar bu baax a baax a baax buñ ci waree pare ne président Ousmane Sonko buñ ko amee rek incha allahu rabbi pour mu war a nekk candidat rek dinañ ko ci pare ne bu baax a baax a baax ba mu nekk suñu candidat moo waral. chaque fois bu ñu jàppee ne war nañoo parrainer kenn koo xam ne rek président Ousmane Sonko moo ko choisir incha allahu rabbi loolu da ngeen ci jot waaye fi mu ne nii li ñu décidé ba nga xamante ne waxtaan nañ teg président Ousmane Sonko mooy Bassirou Diomaye fay mooy ki nga xamante ne moom la ñuy parrainer waaye président Ousmane Sonko nag ñu ngi taxawandi di xaar kon na ñëpp topp li nga xam ne moom mooy parrainage pour Bassirou Diomaye Faye président Ousmane Sonko ñu xaarandi parce que parrainage yu élu yu député yi mi ngi fi. loolu moo waral yéen ñëpp dañoo bëgg ngeen jóg nag am taxawaay bi nga xamante ne moom lañu ñu war a am dem defe ji lii nga xamante ne moom mooy suñuy activité de parrainage pour ñu def campagne de parrainage bu mucc ay boo xamante ne kenn mësu koo gis ci biir réew mi tey jii nii régime Macky sàll mi ngi nekk ci ay schéma ci ay tactique waaye ñun itam ñoo ngi nekk ci suñu xam-xam ak gëm ne sénégale yi ñun lañu ñu àndal te incha allahu rabbi ñun ñooy am ndam ci kaw Macky Sall ak régime ndaxte nag ndam li tax ñu yaakaar ko mooy peuple sénégalais bi ñun la àndal ndam li lu tax ñu yaakaar ko mooy peuple bi dafa gëm espoir te peuple bi dafa gëm ne projet Pastef bii moo mën a def réew mi peuple bi dafa dummóoyu ki nga xamante ne moom mooy Macky Sall ak régime kon yéen askanu Sénégal yéen ndaw ñi ci boppam ñoo ngi leen ñaan. à travers cet appel solennel ci woote bii yéen ñëpp ngeen dem retiré ji li nga xamante ne ngeen dem retiré ji li nga xamante ne moom mooy seeni carte électeur yéen ñëpp retiré leen ko bu leen ko bàyyi fi nga xamante ne moom mooy ci ci ci ci bureau yi ak ci école yi ak fi nga xamante ne fa la nekk jëli leen ko ndaxte incha allahu rabbi 2024 ndam li dafa war a leer naññ ndam li kenn waru ko laam lame te ndam li dañ ko war a amee dès le premier tour kon na ñëpp jóg dem waajal parenage dem parrainer ji kii nga xamante ne moom mooy le candidat Bassirou Diomaye fay te nag ñu def ko ci en un temps record parce que trois semaines la ñu am waaye dañoo bëgg am nombre de parenage boo xamante ne mindeef mosu koo am ci réew mi te bu ñun buñ ci paree mindeef dootu ko gaaw a amaat ci réew mi jërë ngeen jëf lii daal mooy li nga xamante ne mooy déclaration biñ leen doon waajalal incha allah ñii ma dinañ ñëwaat def seen déclaration ci benn conférence de presse boo xamante ni yéen di ngeen ko mën a déggaat waaye tey jii nii l'urgence le plus important l'information la déclaration li ñu leen jox mooy à partir de demain lundi 20 novembre na ñëpp xam ne ñun ca lañu doon suñu parti ak suñu projet jóg nañu ngir waajal li nga xamante ne moom mooy parrainage bi liggéey ci parrainage bi commencé parrainer kan lañuy ñuy parrainer kenn la képp kott dong muy Bassirou Diomaye Faye moom mi nga xamante ne tey candidat la à l'élection présidentielle de 2024 jërë ngeen jëf ci ànd bi nga xam ne ànd ngeen ko ak jot na Group di leen wax ne rek incha allahu rabbi ci mbirum parrainage yi dinañ ci ànd ak yéen tout ces trois semaines là pour lépp loo xamante ne moo ci actualité ñu jox leen ko en un temps record jërë ngeen jëf ci ànd bi nga xam ne